salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal ñu am mbégte dalalaat fii ci senego.com kii di Gaston Mbengue mu nekk acteur politique même su buggul wuyoo noonu euh, bu ñu ràññee ci lang gi euh, ñu ràññee aussi surtout ci ay position yi ferme yi muy jël monsieur Mbengue ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal am mbégte encore dalalaat la fii ci senego.com. jërëjëf Kande maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu toute la population sénégalaise. di ziare ñëpp di delloo ñëpp euh, di ñukkal ñëpp effectivement da ma bëgg a def politicien mais man du ma politicien man patriot la man dama bëgg sama réew man réew mais lu may wax yëpp sama bopp sax taxul may wax parce que man li ma dund dootuma ko dundaat dafa mel ni président Macky Sall li mu dund ko dundaat liggéeyul pour boppam liggéeyul pour man liggéeyul pour yow mais liggéey pour sunu doom yi pour la postérité pour la postérité parce que gis nañ fi ay dëkk yu bari xoolal li bi ñëpp milliardaire la ñu ñu seen dëkk ay genre yu mel ni genre yi am Sénégal tey nekk fa ba taal dëkk ba tey dëkk baa nga ne ñëpp ay pauvre lañu mhm. dëkk boo xam ne ñëpp ay milliardaire pétrole ba nekkoon fa lépp nekkoon fa ay yu ñëw yàqu ko loolu la ñuy éviter Sénégal nga Sénégalais yëpp li ñuy wax debout taxaw barrer la route au récalcitrant aux faiseurs de troubles ñi nga xam ne seen intérêt rek leen tax a jóg en commençant par Ousmane Sonko ñun ñëpp ak genre yu mel noonu ak ñi ànd ak moom ñëpp seen bopp leen tax a jóg. d'accord Ousmane Sonko yaa ko ci wax ji kon mënuñoo dugg ci benn sujet san pour autant ñu aborder question Ousmane mhm. Sonko euh, ñu bëri jàppoon nañ ne état du Sénégal du am fit dem woo ko bay bay sañ di ko auditionné ci mbirum Adji finalement convoqué nañu ko wuy ji na déglu nañu ko ba mu génnee dégg nañ lu ñu wax est-ce que conférence de presse Ousmane Sonko boobu nga xam ne amal na ko ginnaaw bu ñu ko dégloo tribunal de Dakar déggul nga koy yow. xam nga nit ñi dañuy jaawale état du Sénégal ak Macky Sall wala état du Sénégal ak ay APR rek euh, nguur. ak justice ak di jaawale ak justice justice moo ko la justice est là pour tout le monde. ñoom ñoo ko woon pour justice aussi dana am procédure bu ñuy aw doonu la woo rek nga ñëw ñu jàppale tëj hmm. comme su leen neexee ñu woo la jàppale tëj la parce que ñoo nekk maître des lieux na fu ko teg affaire bi bari na coow justice dana ko teg ci yoon di ko teg ci yoon ba Sénégalais yëpp xam ne ci yoon la ko justice teg comme mu ko daan tege affaire su tooñee dañ koy jàpp su tooñul ñu bàyyi am na ñu ñuy jàpp ci sàcc am na ñuy jàpp ci viol am na ñuy jàpp ci malversation moom mooy kan dañ koy woo mi ngi ci kii bi woo nañ ko nag mu génn lan la mu wax ci bureau ba li mu wax ci biti dara du ci dëgg. Hmm, da nga am information. yooyu kooku ñëpp am nañ ko. am nañ ko la mu wax ak lay avocat wax dara bokkunu benn ñaareel ba nan xaar ba jëppandaw ba mais lu muy tiit parce que waxu tiit lay wax parce que soo tiitee dafa ne dañ lay jàpp wala dan lay rey wala lu kenn xamul. kenn jàppagu ko kenn rayu ko kenn def ko dara citoyen la na normal réglé jarul muy amate nit ñi di attaqué nit ñi lu ne mu wax ko di fomante ay vidéo parce que li ñu def nii ci monseigneur. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw kooku sujet la ci ñëw. Mhm. ok ma xaar ñu ñëw ci. d' moom bu mu génnee ci di yàq xelu nit ñi. bu ci audition boobu nee na mhm. euh, bu ñu ko laajee pour mu def test ADN euh, nee na procureur du ko def ndax complot la. waaw moom dana ko diggaale procureur xam nga man affaire justice dama ci dul sori li tax mu wax ko doyen des juges doyen des bàyyi ko fu génn am na xëy na fu koy xaare fa mu xaare nag man Gaston man xaw ma ko mhm. man dafa respecter justice mais jàpp nga ne quand même warul bañ test ADN waru ko bañ man man justice lu mu ma def loo su ma nee tëdd ci suuf sax dama ciy tëdd suuf parce que il faut qu'on respecte la justice il faut qu'on respecte nos institutions l'armée la gendarmerie la police il faut ñu respecter les institutions. mais loolu dafay fekk loolu dafay fekk yow jàppoon ne justice bi euh, jéngul. jéngul jéngul ñoom ñoo jéng nooy jàppee su fekkee ne justice bi dafa jéng nga génn réew dem justice bu jéng foofu la foofu la incorrection commencé d'ailleurs manque de respect ces institutions ba pare ni damaa bëgg a nekk président de la République manque de respect ay institutions mais c'est pas normal ba pare nag ay naafeq ay. Euh, chroniqueur ak i ay espèce journaliste yéen yéen du ngeen espèce mais am na ci ay espèce am na ci ay kenn xamul ay naafeq yoo xam ni li ñuy wax ñoom bis bu problème nga seen kër lay jëkke nan soo xamoon fi li lay yor da nga bàyyi li ngay yor nan nan nan gëm yàlla respecté sunu njaboot yi war a ñëw ëllëg seen njaboot yi ñoom yi war a ñëw ëllëg moom gën na dossier boo xam ne nee na Serigne Bassirou Gueye moo ko falsifié kooku da nga loolu dafay gën a firndeel complot bi nga xam ne dañ koy teg ci kawam. xam nga loolu faagaagal ko xam nga xam nga euh, nag buy dem bétuwaar moom jarul bari coow sooy dem nag buy dem bétuwaar lu mu dajal su ko neexee mbëgg ko ba mu xamee loolu li tax waxu foon bu ba léegi muy tuumaal sëñ Bassirou Guèye kooku sëñ Bassirou Guèye doo ko hmm. parce que citoyen la sëñ Bassirou Guèye après tout am na droit ci yoon. d'accord bu Ousmane Sonko waxee ne am na dossier bu ñu mu tuumal ci ku mel ni Serigne Bassirou Gueye journaliste bu mel ni Pape Alé Niang génn aborder le même sujet ñu arrêté ko est-ce que du gën a ñaaw xel nit ñi Pape Alé Niang di mu def xam nga man Pape Alé sama rakk la dama mal placé sax pour wax ci moom parce que Pape Alé jaar fu hmm. sama rakk Pape bi muy jógee Sud FM dem 2STV bi maa ko yóbbu ci El Hadj Ndiaye contrat ba mu jëkk signé man maako ko signé loolu mos nga ko wax waaw muy sama rakk Pape Alé dama daan toog ba ci ak ma ne ko mais Pape Alé man su ma defoon délit ngay def euh, revue de presse nga war a liggéey nooy def mun damay porté malade <laughs> ah bon suñuy relation fi mu tolloon nit la ah. seytaane ko jàpp rek ak ànd ak ñun ñoo xam ne waruloo ànd ak ñoom Pape Alé est un mais nag dem na ba dugg ci gaal goo xam ne gaal gu bari vitesse mhm. parce que nag ak loo nekk nekk journaliste fii kenn taxu fee jàng kenn suñu doom yi danoo mën a jàng kenn leen a jàng suñu doom xale yu ndaw yi fi nekk léegi amee ay maîtrise yu yu dul jeex donc nit ku ne da nga war a respecter réew mi d'abord respecter armée bi respecter justice. Mm-hmm. man loolu du ma ci ànd kenn du sama doom su ko defoon tey sama dénoncé ko. mais est-ce que waroon nañ jàpp Pape Alé Niang est-ce que mënuñu ko woon blâmer avertir. su ko su ko yow soo su ko su ko defoon wala benn instituteur def ko ñu aussi dañ koy ñu bàyyi ko noonu. parce que yéen journaliste ngeen leen du ngeen teg sax. waaw mais waroon nañu waroon nañu mënoon nañu mujjee jàpp. xam li may parce que journalisme quatrième pouvoir la fi ci réew mi. pouvoir quatrième pouvoir quatrième destructeur way déet les premiers destructeurs de ce pays d'ailleurs ban pouvoir parce que dañuy wax ay. Euh, droit de la presse ay léegi membres respecté presse ñu bëgg ci ku ci nekk wax lu neex mais c'est pas normal. mais loolu dafa xewi. mais ci àdduna bi ñuy arrêté journaliste fenn délit de presse daanaka même aux États-Unis d'Amérique pratiquement on n'arrête pas aux journalistes parce que li presse bi yokkoo léegi ñi ci yokkoo léegi ñëpp ku nekk lu la neex mais amee nañu journaliste ci biir boobu quand même. mais gis yaa reconnaître léegi c'est un bon journaliste. gis nga erreur c'est ndax xam nga dem tànk dama ne la du ma dugg ci liggéeyu justice. Hmm. mais am na ay yoo xam ne soo ko dénoncé nag c' est dépassé les bornes c' est dépassé les bornes est-ce que bu ñu nekk naafeq am na ñoo xam ne ay journalistes gis na ñoo xam ne dañuy taxaw ci toog ci télévision yi di wax devant Pape Alé te suñu sañ Pape Alé du génn ah bon bay bari na ci ñoo xam ne Pape Alé rek la ñu bañ suñu génnee yeneen la ñuy wax ba pare toog di def ngistal hmm. parce que xam na ni Pape Alé defu yoon noonu lañ koy waxee suñu génnee xam nga ni ñëpp lay waxal. Hmm. donc dañ lay loo fas yu yaabiir ca dun la ko guble Sénégal dañ lay jay di la dugal ci yoo xam ni war a cee dugg tey ba nga ne tey fa mu nekk kenn da ko faa fekk dégg ñuy wax dañuy marché dañuy def yu kenn xamul mais moomuñu nit ñi xam nga nag journaliste ñëpp dono man relation yi ma am ak journaliste yi eh, ko am ak ñoom bariwunu mais nag dëgg su tegoo lu nara a taal réew mi du ma ci ànd ak kenn mais bu président mosoon na toog kanam mais moom dans son magistère durant tout le mandat qu'il aura dafa defoon da ngeen yiw nee na dafa defoon du am jàpp journaliste non koy wax mm. dafa defoon que da ko comprendre yiw di def yëfu yiw mais nag du ma du ma def lii ña ma waxoon ni du ma leen def dara ñëw bëgg a taal réew mi damay waññee ko ci la ma waxoon dañ leen di bay parce que président ne woon du jàpp benn journaliste mu bàyyi journaliste di wax lu ko neex du ko def président dañ ko dink pour mu pour mu euh, sàmm réew mi protéger ah réew parce que waxoon naa ne du bugguma moom loolu bugg ko woon mais nag yi exagéré nag mu changé ah loo buggul sa kër. mais ci mi des milliers de journalistes Pape Alé Niang rek peut moo wax wax joo xam ne. xawoon na laal tuuti secret de défense. ak yooyu moom la jàpp mais mënoon nañ ko woo. non non dama alors ne ko non arrête ça sinon prochainement. su ko parce que gouvernement tamit dafay alerter. non pardon prévenir. non su ko Gaston jàpp. su ma ko waxoon su waxoon lu ma warul wax ñu jàpp su ma waxoon lu ma warul wax. relation bi nga am président. président ñëpp xam nañ ne dafay protéger njabootam. ay relation moom président ay relation ma ngi ci biir kaso bi. waaw ay relation ma ngi biir kaso bi. bi nii tey ñu ngi jàpp. Euh, Sitor Ndour te keneen def na lu raw jéego ku ko def li Sitor Ndour def. te pare guñu ci moom. déet kooku amagul preuve. Sitor Ndour dañu presque dafa def un aveu. non Sëriñ Buur deful aveu presque non presque amul dafa weddi sax moom déet non non je euh, dafa weddi audio yi génn muy tuub di jëggalu ne bu leen ma yàq dinaa may xaalis xam nga audio audio moom tegal leen ma ko fëri kon weddi na ne du xam nga ojo d'accord audio moom ku mu neex nga fabriqué audio yu la neex technologie bi ngeen amee léegi su leen neexee ngeen wax sax waxu jël voix Gaston jël voix Gaston jël voix ku leen neex d'accord di def foofu la malhonnêteté commencé rek d'accord Euh, c'est bien déjà gis nañu ci loolu nga wax de léegi euh, mm-hmm. modification yeeg montage yeeg ak yooyu mm-hmm. ba temps yi ñu génn gis nañu benn audio buy circulé ñu en tout cas attribué ko monseigneur Benjamin Ndiaye ak Abbé Jacques Seck mm-hmm. est-ce que bu ñu demee ba toll foofu di jël ay termes di ko dëkkaale fu mu dëkkul di ko attribué ay kilifa yoo xam ne ñëpp ràññee nañu leen ci seen silence ak seen maandu te ci yenn actes yi est-ce que c'est pas alertant. Euh, bien dit ñoom muy euh, Benjamin muy. Euh, Abezak Seck Abezak Seck ñëpp dina xam ci maandu ak baax tey kon suñu leen monteelee ay audio def nañu beneen audio boo xam ne Joseph bi mooy démentir. Mm-hmm. danaa la ko jox léegi su la neexee teg ko ci sama biir émission moom mooy demantir ni du ñoom ci danañu porte plainte te loolu lañu war a def parce que dindi tuuma la. parce mm-hmm. que Sénégal kenn moomu ko muy muy cardinal ba. muy xalifa ba muy sëriñ ba muy ustaas ba ñëpp ay sénégalais la te ñoom ñëpp dañoo war a joxe bon exemple war a taxaw di jaarale nit ñi luy taxaw réew mi fuy fuy jëmale réew mi ci jàmm mhm. c'est pas parce que lii laa nit ñi jox nañ la jëbul nañ ci yow wala nit ñi ñëw na lu nga nekk seen prêtre ou tout ça tax ñu lay pousser pour ngay wax loo xam ni waxuwul man gëwuma ni ñoom ñoo ko wax parce que ñoom dinañu euh, comme weddi nañu nag alhamdulilah nan gën a weddi sax nan porter plainte. nañ def vidéo sax génn moo gën audio génn parce que des des des des pauvres types des malheureux des destructeurs de ce pays là ñëw taxaw malhonnêtes qui sont di jël nit ku baax ni Adrien euh, ni benn photo monté ko ci kaw benn oiseau boo xam ne kenn gis ko fu muy wax keneen nekk ca suuf di wax pour jéem a yëngal réew mi bien jamais du wax loolu parce que su waxee loolu day mel ni sax moom kuy kuy kuy attaqué Adji Sarr parce que suy wax ni une fille walla ni ko waxee. Mhm. Adji Sarr am papa am yaay. Macky Sall daf ko jur Gaston def ko jur. Mhm. dafa am papa am yaay. tey li li mu li muy ko metti ba mu sa sœur mu metti na xamuñu ndax dëgg mais ban intérêt la nit ñi di am yi def yi mel noonu kan bon amul benn intérêt bon ak a taal réew euh, dafa jarloo nekk président de la République dafa jaralo président de la République yàllaa koy joxe Macky Sall la teg pour le moment te dana amaat dana présenté waat te su présenté waat dana leen gañe troisième mandat bi ñu koy jéem a xëpp ak di jéem a wax fii dara du fi jib te nit ñi ragalu lu ñu dee parce que kenn du day ñaar yoon on meurt fois mm-hmm. kenn day ñaar mm-hmm. kon nan bàyyi xupp gi di jéem a xupp nit ñi c'est que waa APR yi sax ca commencé noonu d'ailleurs heureusement pour ñoom ku leen laal jóg leen ku leen attaqué attaqué leen ko c'est c'est du verbal verbalement que nan nan dugg ci télévision yi nan dugg ci site yi nan dugg fépp parce que benn minorité waru leen a domine ci ay communication hmm. c'est pas possible te ñoo xam ne li ñuy wax yëpp même ñi jàngul xam nañ ni c'est fo parce que ay fen ay kàcc ku ko dégg xam ko ay hmm. ruube ku ko dégg xam ko ay ku tiit defe naa ni réew noonu lañ koy amee ay fen fen mën naa tax ñu jox la réew hmm. sunu Sénégal kenn du ko mën a yàq kenn du lor suñu sët yi kenn du lor suñu doom yi dañ ko nangu su leen su leen neexee ñu di menacé ku ñu menacé danañu taal sa kër danañu taal sa lii danañu taal nan taal nan rey kenn du dee ñaari yoon. Mm-hmm, d'accord léegi ñoom ñoom fit waxante bala ñun. <laughs> déjà am na solo euh, Ousmane ko defaat na beneen sortie ginnaaw bu mu expliquer la nature de sa de son échange de son audition avec le doyen des juges. Euh, mu tuumalaat leen encore affaire bu garaawa ah. nguur Macky Sall nee na dañoo dem Ndakaaru jaay fo ay des des des milliers de de mètres carrés. moom xam nga ah, xam nga day liggéey xam nga day liggéey liggéey na impôt domaine mais xam tax les textes ak ay règlement yi nekk impôt domaine c'est-à-dire que di nga am yoo affaire patrimoine ba xam nga ñoom looloo leen di bëgg a rey. bi ñu diggee pétrole mais moom bu bi rek ko tax jóg. moom patrimoine bi moo ko tax a jóg suuf si moo ko tax a jóg. ndax loolu am na lu ci xam et puis am na ñu nekk ci biir foofu peut-être ay nitam di ko informé ci lim lu information yi moom am le président Macky Sall ku ci ëppale fukki yoon ak yow xam na lépp du leen ko du leen ko bàyyee fi mu ne bi mu xamee ni xam naa ni président Macky Sall xam na lépp léegi muy profité di jëkkantuy wax parce que xam na ni euh, ay pexeem jeex na ay pexeem jeex na patrimoine bâti lan la ay tabax yu màggat ay wala yu fi tubaab yu bàyyi woon mais am nañu direction boobu le président de la république moom la ñu fal xanaa du ñu bàyyi ay bâtiment yu màggat rek covidage muy muy délabré wu ci dëkk bi su amee ñu ko mën a liggéey di ay patriotes di ay sénégalais man de xaw ma mais su fekkee am na ñu ko mën a liggéey ñu joxe ko ñu liggéey ko Sénégal mel ni Miami. Mm-hmm. c'est tout surtout que da ngay employé ay nit. di employé ay nit voilà ay sénégalais la hmm. ñu employé. mais ñu bëgg bëgg bëgg xupp nit ñi pour ñu arrêter les opérations pour ñoom ñoom ëllëg ak si biir suñ fi defee jéeya wala par d'ailleurs du am parce que su fekkee dañoo yaakaar ne réew mi dañ jël ñoom du ñu jël réew mi mais boo ñu delloo seen xel billahi duñ ko jël. Hmm. man du ñu jël dara dañuy nax nit ñi rek ak nax nit ñi ci xel ñii ragal dugg kaso ragal leen tax nee nga léegi def na yeneen déclaration ci déclaration la dëkk saa yoo xëy dina def déclaration déclaration ku mu neex nga def ko surtout yu dul dëgg il faut que nit ñi xam di nangoo waxante dëgg nangoo jub xam nga taxaw parce que dégg nga maam kii nekk na fi rek yooyu yooyu dafa xewi sax. ok am na solo léegi mënuñu wax ak Gaston tamit te duñu tudd sport bi ah euh, Lions yi ñoo ngi dem coupe du monde. yàlla na ñu gagné. Sadio maane xaw a am blessure bu ndaw. Mhm. Euh, am nga ci information am wala ban message nga koy yónnee moom en tant que. acteur clé de cette équipe nationale di ko ñaanal yàlla. Sadio est un grand homme Sadio est un ambassadeur du Sénégal Sadio Sénégal gépp ko ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw nit feebar na euh, Benzema nga ne ci même situation bi la nekk. Mhm. ñun. ñoo bëgg ay commentaire rek suñu commentaire day bare bare bare bare ba yàlla may may nu nag loolu commenté <laughs> mais Sadio dafa blessé blessure bi mën naa tane balaa match yi commencé. oui bien loolu la ñuy ñaan yàlla. Mhm. daloon nañ fi ci Coupe d'Afrique bi avec euh, l'autre Ismaïla Sarr. Mhm. ci deuxième tour bi la ñëw. waaw te ñoo jël coupe ba xëy na loolu ñi lay la. Mhm. ñu jig loolu foog ñu xaw a tiit tuuti quoi. loolu ñu jib mais <laughs> saa yàlla na ko yàlla taxaw. ñun ñëpp nañ am yaakaar ci suñu équipe. luñ ah. fa jëlee it ñu xam ne loolu la doon yàlla jagleel. Aliou Cissé salaire am jóge na quinze millions dem na ba trente millions. mënoon naa dem sax cinquante millions parce que Aliou Cissé a du mérite. ba muy soog di ñëw kenn yaakaaru ko woon kenn woonu ko woon il a reçu de truc ay peau de ay lu ne mais euh, arñam ak jomam ak fullaam ak faydaam moo ko eggale fii tubaab yi ñuy fay ay cinquante millions ki cent millions ci football Aliou Cissé satisfaction bi mu defal Sénégal mérité na cinquante millions mhm. bu ñu ñaanee suñu bopp mhm. c'est première fois quand même qu'un entraîneur africain euh, dans un pays africain puisse percevoir un tel salaire. non non non surtout au Sénégal non non waaw au Sénégal ngay wax. Sénégal waaw au Sénégal mais entraîneur yi ci yeneen pays yi Côte d'Ivoire Maroc tout ça ñu ngi percevoir lu ëpp loolu. Mhm. kenn waxu ko ñu daan fay tubaab yi lu ne ñoom Giresse ñoom kii yóbbu ay 15 millions ay loolu Aliou Cissé Sénégalais dem yóbbu na coupe du monde dem quart de finale nekkoon capitaine d'équipe ñëw dellu si li mu enduré ak coow yi ko ci toppoon ku ne critique lu ne gëm liggéey bi rek gëm liggéey bi. Mm-hmm. Aliou Cissé tey mérité na cinquante millions par mois sans mm-hmm. compter les primes Aliou Cissé mérite tout parce que ñun Sénégal bonheur rek lañu bëgg mbégte lañu bëgg ku ñu koy tegal ku ñu koy defal. lu lu loo am rek mérité ko. ci lamb ji dese ngay affiche rapidement. ah oui année bi yëpp le premier janvier mooy le drapeau Thione Seck. day nga xam ne mooy euh, Balla Gaye Boy Niang. Mhm. le quatorze janvier. am na combat aussi je pense euh, euh, je ne sais même man kii sax amee. waaw kii mooy mooy yor les Gaston production sa doom mooy Makan voilà <laughs> Makan moo yor loolu au mois de mars combat bi gën a rëy muy Reug Reug sa Thiès mhm. en juillet avant juillet y a Pakala et l'autre euh, Franck et en juillet y a Eumeu Sène Balla est-ce que yaa ngi xalaat organiser benn journée boo xam ne da ngay jël mbëri ndaw yi woo ancien gloire yëpp ñu ñëw def prestation woo xam nga ñu ngi xalaat lu ne rek mais lépp rek man li may ñaan d'abord le promoteur yeeg ñëpp àndandoo nekk benn d'abord. Hmm. ñëpp nekk benn ñun ñëpp ñu yónnante jàmm. Hmm. xam ni xool asamaan. jarul buuxante <laughs> na ñëpp nekk benn ñu bëggante yéenante jàmm et tout ça. d'accord ñu ko defee rek ñëpp euh, Sénégal mooy jëm ci kanam. lan ngay tëjee am nañ di wax ni sénégalais yi nan bay déglu ay faiseurs de trouble nan bàyyi déglu ñoo xam ni. tuuti nit la doon nekk ci télévision yeeg ci siti di woote musiba le président Macky li mu liggéey ci Sénégal bi ragal naa ne ku ci kontaanoon da ngaa bon da ngaa iñaan jeexalee dana jeexal. Mhm. mais nan ñaan yàlla muy jeexalee ci bàyyi fi loo xam ni Sénégal gépp wooy lay doon. Mhm. ay affaire u deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat yu c'est des détails c'est faux problème Macky Sall a le droit de se représenter en deux mille vingt quatre et il va le fa te dara du jib képp ku fi jéem pouse euh, puus nit. ngeen na armée ngeen génne yeeg euh, euh, armée motu ko xam Sénégal yi coow mën na mais am na bi ñuy jàpp Khalifa Sall mais lu ñu doon wax soo ko jàppee ñun ñëpp ñu tëdd. <laughs> ba ko jàppee ñi ko doon wax ñëpp nanguutu noo jaar cour sax pour xool pour xool rëbës. <laughs> doy nag. Hmm? <laughs> d' accord pour xool rëbës. gars yi dañuy wax rek wala ñuy. loolu gaaruwaale la de. non gaaruwaale moom wala ñuy amati wala ñuy influencer ay doomu jaamu. ca seen doom du génn ñoom duñu génn doomu jaamu yooyu nag am leen xel toog xalaat leen seen bopp Macky Sall yéen lay liggéeyal yéen xale yi merci beaucoup merci beaucoup mbokk internet di ñoo ngi leen di jaajëfal ñu fi doon dalal kii di Gaston Mbengue xaritu président Macky Sall acteur de lutte acteur culturel aussi ah parce que le, la lutte aussi ci culture aada la bokk vraiment dégg wax di dugal ay famille am ay soxnaam ay ñoo <laughs> xam ne xamuñu ci yëf yi dara xam yàlla xam na ni soxna nañu président xamul ci li ñuy wax ak yoonam nekku ci. Ah, ku baax la sax d'ailleurs. non non non. Ah, dana lakk ñu bari. dama koy wax ci télé bi mo dégg ma fa yóbbu. non dana lakk yu bari dana lakk ñu bari danaa la fa yóbbu mais dana lakk yu bari. <laughs> merci beaucoup parce que fii soxor soxor bu mu tax ngay. ngay dëkkal nit fu mu dëkkul. waaw mënul ñàkk nag moom ak yëre mu ñoo ànd ah. mënul ñàkk di bërgi dem rek. bërgi ku mu fay ay cagaak ay kenn xamul ko tudd sax parce que il faut savoir tourner la page aussi doon ah. doon jéem a yàq sax sama der man ko a ko kenn mënul yàq sa der waaw yaay papa ñëpp et Sénégal fii benn nit rek lañ fi woowee Gaston waaw na rafet rek sa diggante ak sa xarit Malick Gakou yàlla na yàlla na yàlla na ko yàlla defaraat <laughs> di doxalante <laughs> merci jërë ngeen jëf mbokk internet bi beneen yoon senego point com jërë